laa taabudu illa iyaahu wa bilwaalidayni ihsaana kon ak ci yeneeni barab kon teg gi mu teg àqi waajur ci taftal ko ci àqi boppam door a tudd yeneen àq yam cay teg loolu day yoone màggaayu àqi ñaari waajur du ci bari sax du yem ci tudd àqi waajur yi waaye léeg mu teg ca tudd àqi waajuru jigéen coonoom ay coonoom yi nga xam ne daj na ko ci doom kon àqi waajur nekk na lu rëy fa sunu boroom lu rëy ci diine di loo xam ne sàmm ko ak def ca kem kattan ngir joxe ko nekk na warugar nekk na farata ni gëm yàlla ak julli ji juróom ak koor ak asakaak ya demee noonu nekkee farata ah, noonu la toppi ñaari waajur itam nekkee farata kon àtteem ci diine mooy lu mënta lu war la ab ab jullit boo xam su ko defee am ci pay sunu boroom waaye bu ca sàgganee bu ko sunu boroom jéggalut ah, lu rëy mën na ko caa toppee àqi waajur nag ñaari waajur buñ ko dee seet am na àq yoo xam ne ci dunduk ñaari waajur yi lañ ko war a sàmm waaye am na yoo xam ne bu ñu wanee ginnaaw du tee ñu war di wéy di ko di ko sàmm ñaari waajur yépp nag ñoo am àq ci nit ndax suñu borom ñoom ñaar yépp la tudd wa lay wax ihsaanan waaye wax nañ ne eh, ñaari waajur yëpp buñ bokkee am àq ci nit ki ba noppi itam àqi waajur wu jigéen moo gën a rëy moo gën a màgg moo tax buñ demee ci afaan yi fekk muy tudd fu bari ñaari waajur ba noppi nag beral waajur wu jigéen tudd ay coonoom ngir junju gën gi àqam gën a rëy wasay naa lisaana bi waalihi xusnan حملته حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا am fu mu wax ne xamalatu ummu karhan wahnan ala wahnin kon foofu tudd na coonob ëmb ak coonob indi doom ak coonob nàmpal muy loo xam ne waajuru jigéen moo ko jagoo muy lu diis lu metti moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam beral na waajuru jigéen ay soññee yu soññee ci àqam ginnaaw bu mu boolee ñaari waajur yépp eh, soññee ci seeni àq soññee ni ci àqi ñaari waajur yépp ni ko alquran indee wax na ne ridallahi fi ridal walidayni wa suxtuhu fi suxtihima ngërëmul ñaari waajur ngërëmul yàlla mi ngi ci biir ngërëmul ñaari waajur merum yàlla mi ngi ci biir meram seeni mer maanaam bu nit ki nit bu ko ñaari waajur ngërëmee mën na ca am ngërëmul yàlla waaye suñ ko meree du mën a am ngërëmul yàlla kon loolu soññ la ci ñaari waajur yépp waaye mu beral waajur jigéen ah, tudd ay àqam bokk na ci li wax ne aljannatu taxta aqdaamil ummahaat mooy aljanna mi ngi ci ron tànki waajur yi jigéen yi maanaam kenn ku nekk dafa mel ni aljanaam waajuram bu jigéen moo ca teg tànkam di fekk teggiwu ko du ca mën a dugg mooy nit ki bu fekkee waajuram bu jigéen mere na ko euh, am ci moom naqar bu ko jéggalul du dem aljanna te sab Seydina Alqama bu siiw la mooy bi mu demee ba àgg ci war a génn àdduna bëgg a tudd ñaari baat seede yi ngir mujj ci aw làmmiñam daf koo jafe mu di ko jëm jëm mu jafe ba ñëpp am ci jaaxle ñu dem ci yonente bi sallallahu alayhi wa wax ko ko mu laaj ne ana waajuram bu jigéen ñu ne ko mu ngi mu woolu ko ba mu ñëw mu ne ko sa doom ji eh, ndax da dalaa ameel àq da nga ko da nga ko mere mu ne ko waaw dama ko mere lool sax dama ko mere lool ndax dafa fab soxnaam teg ko ci sama kaw mu ne ko teen koo baal mu ko ah mënu baal mu ne ko teen ah, koo mu ko mënu ma koo baal mu ne ko ah kon nag ginnaaw dafa nar a dem ca safaan ba rek naa ko teel a yóbbu naa nañ ko teel lakk daal ne gaaw yowuti matt gaaw dajale ko ma lakk ko léegi ba mu defee noonu nag xolum njëriñ daal yëngu mu daal ne baal naa ko ba ne baal naa ko rek ñëpp dégg ca kaw mu naan laa ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu kon biral na ni ku waajuram bu jigéen mare ah, te jéggalu ko du mën a dem aljanna kon mooy loolu mooy firi aljanna mi ci suuf tànki yaay am na ku ma sañoo ci yonent bi sallallahu alayhi ne ko kan moo gën a am àq ci man ginnaaw yàlla mu ne ko sa waajur mu ne ko akkan moo ko sa yaay mu akkan moo ko sa yaay sa akkan moo ko sa أشهد أن لا kon waa ji dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kan moo ëpp ci man ak ginnaaw yàlla mu ne ko sa waajur wu jigéen mu ne ko ginnaaw ba kan mu ne ko sa waajur wu jigéen mu ne ko ak kan mu ne ko sa waajur jigéen mu ñetti yoon mu ne ko ak kan mu ne ko sa waajur wu góor nga xam na ko waajur bu jigéen ñetti yoon doog a wax góor benn yoon kon loolu day wane màggaayu àqi waajur wu jigéen bokk na ci li yonent bi sallallahu wax ne azamu nnaasi ala rajuli xaqan ummuhu wa azamu nnaasi ala nisaai ala almarati xaqa xaqan zawjuha góor ki gën a ëpp àq ci moom ci nit ñi mooy waajuram bu jigéen jigéen nag ki ëpp àq ci moom ginnaaw waajuram ginnaaw wa yàlla mooy boroom këram loolu kon day wane màggaayu àqi waajur wu jigéen waaye teewul waajuru góor it jox ko àq ju mag a mag a mag ndax li muy waajur nga xam ne kilifteef nit ki nit ki ci waajuram bu góor lañ koy askan kon askanu ci askanu waajuram bu góor lañ koy boole lu bari ci xeeti ndono ci wet googu lañ cay bàyyi xel lañ cay gën a bàyyi xel euh, kilifteef kilifteefu njaboot it kër kilifteefu kër muy wa doom ya ak soxna yaak ñëpp ba tey ci loxoy waajur wu góor la ko suñu borom teg am na it ku waajur wu góor mas a bu dikk di ko jàmbat yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne ko anta wa maaluk anta wa sa alal yéen ñëpp kon waajur góor it nekk na ku am wàccuwaay ku kawe daraja ku rëy àq war a sàmm ak yi nga xam ne nag bokk na ci ak yi ñu war a sàmmal waajur ci waajur yi buñ fi nekkee di dund ak ñun mooy di topp di leen topp topp seen digal di bàyyi seen tere di lépp lu ko waajuram bu digal muy góor yu jigéen te muy loo xam dàqontu ndigalul suñu boroom da ko war a topp lépp lu mu ko tere te dëppwut ak ndigalul suñu borom tere ga dul suñu borom terewu ko lu suñu borom digal lu mel ni wéetal yàlla ah, kon daf ko caa war topp kon topp waajur yi di topp seeni ndigal di bàyyi seeni tere loolu bokk na ci eh, àq yi nga xam ne war na nit ci ay waajuram ñu delloo ci mbirum sëriñ bi mi ñu koy fekk mu naan wa burra waaliday ka fokk bihima وكن مبادرا إلى أمرهما وانتهي عن جملة ما قد نهياك عنه لربك فتزداد علاك waaw mu ne kon na nga lépp mu ne lépp la sa ñaari waajur digal na ca gaaw waxuma na nga ko def waaye ca def ga te lépp lu la tere na nga ko bàyyi te loolu lépp na ko def ngir jëmmi yàlla bokk na ci itam taxawu ci lépp luy seen yitte ci yittey alal ak yittey eh, loo xam ne jëmm koy dox ak a wax mooy lu mu bëgg ci yittey jëf wala jëriñ yitte ju mën a doon ju ay waajur am eh, bu ko doom ya xamee war nañ caa taxaw def ca seen kem kàttan faj ko kontam nit ki baax ci waajuram ci wàllu alalam di jox ay waajuram alal lépp lu yittewoo ci alalam mu jox ko eh, tey jëf ci ay cëram it lépp loo xam ne lu luy aajo la di ca dox di ca wax ngir fa aajo yooyee farlu ci lool loolu bokk na ci li nga xam ne war na nit ci ay waajuram rawatina bu ñu demee ba doon mag ba seen kattan néew su boobaa lislaam day waral ci doom ji mu yor ay waajuram su ko mënee daa war moo war yor kon ay waajuram nañ ko yore woon ba muy ndaw kon ñoo ko war yor bu dee góor gi moo ko war a yor yoraale soxnaam ak kay liggéeyal soxnaam ay leeral la ñuy foofu nag ci ñaata soxna la la ca war a yor rek mbindaanum ñaata soxna yu mel noonu waaye yor gi daal ak yoroo ko soxna moom moo ki soxnaam daal yor leen kon war na ko boo xamee dem nañ ba télé ba néew kàttan kon loolu war téef lay doon ci doom ji mu war koo def doonatul rek koo xam day farlu ci di ko jàppalee ko dimbale waaye da ko war a yor su demee ba tële mbaa mu néew doole daf ko war yor su fekkee amul alali boppam ju mu a jëfandikoo bokk na ci li war waajur yi nit ki ci waajuram yu mu bokkal di dund itam war na ko wormaal am yar ak teggin ci kanamam di ko toroxlul wax fid lahuma janaaxa zulli min rahma waxul rabbi irhamhuma kama rabbayaani sagira nit ki daa war a wàcce boppam ci kanam ay waajuram di leen toroxlul di suufeel kàddoom di ko war sa yu wax ñoom mu fexe ba kàddoom di suufe bañ a féete kaw kàddu waajuram di ko di wax wax yi nu teggiin waxam du ànd ak ku gëdd du ànd ak yëkkati kàddu ay yuux du ànd ak ñàkki teggin du ànd ak genn wax joo xam ne ñagas la wala ji wane ne euh, moom ngi tàyyi ci li mu daj ci waajuram wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma waqul lahuma qawlan karima kon war naa yar kàddoom euh, ak i waxam ci kanam ay waajuram yar jëmmam saa yu teewee ci ñoom wan leen ak toroxlu ak suufe suufelu ngir màggal leen war ko ci itam mu teral leen teraanga teraanga bu ñu ko waxee mooy defal jëmm ji lu ëpp la war ci yow sa diggante nit ki la ca war boo ko defee ba noppi la nga cay tegaat nag ci xeeti jëf yu rafet yu baax dañuy tuddee teraanga kon nit ki war na teral ay waajuram di leen defal lu ëpp euh, lay seen yitte yi yemante ñàkk bu weesu foofa di leen defal loo xam ne teraanga lay tudd ku ko dégg xam ne lii teraanga la mooy lu nit ki wax bu ko nit ki defutoon mën naa am du ci am ay baan waaye mu def ko nag ngir euh, fonk jëmm ji muy teral ak màggal ko kon teraanga war na ci doom ci diggante nag ay waajuram eh, ci kemtaayul fa ko fa ko mënam fa ko mënam àgg eh, kon yooyu bokk na ci waxte fi nga xam war na nit ci ay waajuram buñ bokkee di dund bu wane ginnaaw itam teewut àq am nay àq yu bari ñu war a sàmm bokk na ci leen ñaanal leen jégalul yàlla ña nga xam ne waajur yeen waroon taxaw ci ak njaboot ñu taxawu leen di jokk seen bokk di jokk seeni am di jàmm ak seeni xarit ak seeni wëlëre waaye naal ya ñu bàyyi ginnaaw itam ñu di ca taxaw ngir àggale ko loolu lépp ay warteef la yu war nit ki ci waajuram ginnaaw boo xamee ne génn àdduna kon mel nañu waxtu wi dab nañu ñu ngi tënk fii kàddu gi di ñaan suñu borom defal ñu dégg ak topp wassalaamu aleykum wa rahmatullahi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 الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت فلنحصي على عباده جميع أعمالهم قلت أو كثرت ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة عبد ظهرت طويته وأشرقت بالإيمان سريرته وتنورت ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير موجود شهد به خير أمة للناس أخرجت صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين كبرت مكارمهم وكثرت من يطع الله ورسوله نال من خير الدارين ما نوى ومن يعصهما فقد غره الشيطان والهوى أما بعد فيا أيها الناس سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض uiddat lilmuttaqiin wagtanimu mawaasima alxayraati faqad xuttat lakum rikaabuha wa taarradu lima yaridu alaykum min annafaxaati faqad futtixat lakum abwaabuha وتعرضوا لنفحات ذي الجلال والإكرام بالصلاة والسلام على الواسطة في سعادة الحال والمآل واستغفروا ربكم وله أنيبوا وإياه فراقبوا zalikum allahu rabbukum fa tabaraka allahu rabbul alamin huwa alxayu la ilaha illa huwa fadcuuhu muxlisina lahu ddin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulillahi hamda man tadarra bayna yadayhi muniban wa xaadi'a laa uhsi sanaa alayhi walakinni asilu maa kuntu lahu bitarki hamdihi qaati'a wa na'uudu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'aati a'maalinaa ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ورسوله مقبول الشفاعة ومجاب الدعوة أما بعد فيا عباد الله اجتهدوا بالعمل الصالح قولا كان أو فعلا واعمروا الأوقات بالعبادة فردا ونفلا وأخلصوا العمل فإنه لا يقبل منه إلا ما أريد به وجه الله العلي الأعلى وطهروا سرائركم من قبل أن يأتي يوم تختبر فيه السرائر وتبلى وقفوا بين يدي الله موقف الذل والانكسار فإن من وقف ببابه فتح له ويسر أسبابه والإنابة إلى الله سبحانه هي أساس العبادات والقربات ومفتاح أبواب الرحمات فالكل من عباد الله الصالحين لا يترك الذنب ساعة جنابه العزيز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 الله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 akbar assalaamu aleykum. assalaamu.

ولتبشري المصلح في نيتي وفي بالي وتوفقا بالهادي وفي